السلام عليكم ورحمه الله باكي نيو لين نيو دي زيار لين بال حق نان سبحانه وتعالى بوري ني حديث تيبي دا فاي عن عائشه رضي الله عنها قالت ان قوما قالوا يا رسول الله ان قوما ياتوننا باللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوه الراوي عائشة أم المؤمنين المحدث البخاري حديث بين سيدتنا عائشة موكو نتلي موخنا يننت تبي صلى الله عليه وسلم دفا أم أي nit ñu ñëwoon ci saxaaba yi di koy laaj ne ko yaa rasulallah ñun de dafa am ay nit yuy ñëw di jox te yàpp wi ñuy jox xamuñu ba xam ñoom bi ñu koy rendi tudd nañu turu yàlla wala déet maanaam wax nañu bismillah teg ci allahu akbar ja wala déet yonent bi sallallahu alayhi ni leen buñ leen joxatee na ngeen tudd yàlla te ngeen lekk tudd leen turu yàlla te ngeen lekk yàpp loolu moo tënk xadis bi ci la ñu ci déggeele rek ne jullit bi buñ ko joxee yàpp wa dagana lekk xar la wala bëy wala nag wala gelem wala petax wala ginaar wala kanaara wala xeet yooyu nga xam ne yu dagana lekk la ki ko ko jox bu fekkee ne da koo rendi ba pare wala muy yàpp wu ñu importé jële ko biti réew mu ñëw ñu reyee ko ci usine yaag yu mënti doon bu ñëwee buñ ko rayee même bu raye wuñ ko paaka sax waaye rendi nañ ko wala ñu kutt ko wala mënti doon moom dana ko doy ci yàpp woowa mu tudd turu yàlla jëfandikoo ko tut ko wàññi dara ndax yonent moo jàngale loolu sallallahu alayhi wa sallam mais na tudd tur yàlla bu tuddee tur yàlla leew na ko donc mën na koo jëfandikoo incha allah loolu mooy di tënk xadis boobu ci ko nettali mooy sayyidatuna Aïcha mu ngi ci saxiixul Buxaari aqulu qawli hada wa astaghfirullah al azim li wa lakum wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh